or peuple bi dafa soxla woon réconcilier ak justice am bi dafa soxla woon une justice transparente dafa soxla woon justice bu ko jege loolu moo tax dafa décidé woon diggee ko ci bi ñu àndeek moom ci campagne bi yëpp ni li peuple bi bëgg daf koy def waaye aussi ñaari discours yi mu njëkk a def muy discours bi mu def le deux bi muy def prestation de serment ak discours bi mu def le trois veillu indépendance dafa constaté ni am nañ 64 ans d' indépendance te ba léegi justice bi teguwul ci yoon lii nag ku nekk jéem na ko ku nekk def na ko mais jàpp naa ne ci moom la ko yàlla di dogale ndax ni ko yàlla dogale justice teg ko li mu teg li ko li mu ko teg ba justice tax biñ koy euh, choisir comme candidat mu nekk kaso comme ni ko wolof fi di waxee ci Sénégal ume koor kaso waree pale loolu yëpp justice ko ko tegoon kon jàpp naa ni justice boobu dina ci bàyyi xel bu baax au bonheur des populations sénégalaises mais bien sûr des résolutions fortes parce que acteurs yi nga xam ne ñoom la concerné euh, ñoom la ñoom lañ koy jox au ah des sénégalais parce que bu leen fàtte ne am na plateforme jubbanti boo xam ne mu ngi yiir Euh, sénégalais yi li ñu xalaat ci justice bi te boo gisee engouement bi nekk ci plateforme bi moo lay wan ne sénégalais yi bëggoon nañ ko leen laaj ñu wax li ñu xam ci seen justice tey nag laaj nañ leen ko wax nañ ci te yooyu yëpp dañ ciy tenir compte bu ñenn ñi di fustiger naan lu tax magistrat yi di toog ak ancien détenu je pense que c' est inédit et c' est ça c' est à dire que li ci am importance moo di magistrat yi bi ñuy tëj détenu yooyu xamuñu woon lu nekk ci seen xel ñoom rek ñoo xam li nekk ci seen xel ba tax ñuy tëjaate te ñooñu xamuñu luy kaso donc baax na tey ñu won leen ñii ay nit lañ comme ñoom